ndaje Thiès bi tey day wane ne rek ni ñun Afrique yëpp benn lañu réew yi fi nekk tey dégg ngeen ñu présenté leen kon nañu jàpp ni rek tubaab yi sax dañuy wax ni c'est le moment des grands ensembles waaye wolof nag daf ko léebu si lu kenn man fukk ko dàqale di tax ñu daje fii mooy nun ñëpp suñu yéene moo nuy bay lu nuy dundal te bañ jiggaani suñu lekk benn góor neewoon na Mamadou Cissokho nee na biir lu ne mën nañ ko denkaane ba mu des biir biir moom boo ko dénkaanee rek daanaka yaa ngi si loo kenn xamul beneen bi mooy nun Afrique dañu am ay potentialité yoo xam ne tey yenn pays européens yi amatuñu ko looloo moo waral sax ngeen gis tubaab yi bari ñu ngi daw ñëw Afrique waaw gannaaw nun am nañu suuf am nañu ndox am nañu jant am nañu ay bras yu valide lan moo nu war mooy nu liggéey pour koom bi yokku suñu liggéey nag mi ngi jëm si liggéeyu mbay sàmm napp ak yorinu àll bi waaye balaa nuy bëgg balaa nuy daan suñu mbër mooy dañuy fexe mu sax dàkk te mu sax dàkk faw nu saytu lu ñuy liggéey saytu ko si wàllu koom saytu ko si wàllu jëf saytu ko si wàllu qualité saytu ko si wàllu quantité léegi ne tax li tax nu daje fi ku nekk si réew yi fi nekk dana wan na mooy liggéey ñu càmbar loolu lu si baax ñu dëgëral ko wëlbati ko ba keneen jot si lu si digg doomu ñu ñu defar ko ba mu baax pour keneen jot si léegi nag dinañu fexe ba incha allah ñu dem ngaay dem ñoo euh, Mboro xooli lañ fay yëngu loolu nag yëngu-yëngu waa Sénégal ay membre FONGS muy UGPM ak UGPN suñu ñëwee ñu méngale ko ak yëngu ko jóge Togo ko jóge Bénin ko jóge Niger ko jóge Mali ko jóge Burkina nu méngale mbir léegi bu ñu ko méngalee nag daanu am jubluwaay boo xam ne jubluwaayu Afrique lay doon dootul jubluwaayu benn réew jubluwaay la boo xam ne dana tax aussi sunu institution africaine yi suñuy décider si wàllu mbay càmm ak napp fekk ñu am ay éléments éléments yooyu nag daanu ko songandoo càmbarndoo ko weccoo ko ba jubluwaay bi ëllëg day nekk jubluwaay boo xam ne ñun ñëpp noo si ànd ngir lan. ngir nu béy lu ñuy dunde ngir lan ngir sunu nekkin nun ñi nga xam ne nooy monde rural mu nekk nekk bu sax dàkk am qualité am wér loolu suñu ko defee rek am nañu yaakaar ni daanu contribuer effectivement si sécurité alimentaire réew mi waaye daanu xeex ak ndóol li gën a wér nag mooy ndimbal na sa fekk ba loxol borom soccante bi ñu nekk jotul fekk nañu mu jotu ku yaakaar ni keneen dana jóge feneen ñëw développer sa gox ak sa réew ndax nga sa bopp sunuy réew nun noo ko mën a développer suñu bopp te mbay si sa weewu tànk te pour nu développer suñuy réew nag exploitation familiale agricole yi am si monde rural kenn mën leen jaar sàkk ñooñu daal yaakaar naa ni bu ñu doxee rek réew mi dana dox ndax ñoom ñoo représenté li gën a bare si population suñuy réew pexe yi nag exactement sa question bi li tax mu am solo mooy pexe nga wax pexe yi ndaje yi mën a indi mooy pexe gëstu pexe càmbar pexe wane ay misaal yu baax yoo xam ni dana jibbanti misaal yu digg doom pexe am lu baax toppandoo ko ba mu jural lu baax pexe nag àndandoo ñun ñëpp jublu si yoon wu baax ngir mu eggale nu fa nu bëgg a egg looloo waral daje bi loolu nag pour nu egg si ku nekk si nun dana nettali géntam waaye mën na bañ nekk gént dana nettali jëfam jëf boobu nag jëf boo gis dana am lu baax dana am xëy na lu si digg doomu waaye yow tey sa fulla sa man-man sa xam-xam mooy nga fexe ba lu baax nga wëlbati lu digg doomu nga jubbanti ko ndaje mi nag tey am nañ si yaakaar incha allah fii ak talaata bu nuy jeexal daanu am pexe boobu waaye yemul si ndaje bi pexe baa ngi jëm jeexul li wolof di wax jëm jeexul ku fi jógee boo delloo sa réew foow nga fexe ba pexe moomu duggaat si sa mbirum réew ngir mu mën a baax fekk nga jàng nga loo xam ni fii beneen réew la ko jàngal mu doon yóbbal looloo tax na daje fi tey jërë ngeen